maa ngi tudd madame Ndiaye Fatou Ciss di premier adjointe au mair de Morolan dañoo njëkk a gërëm waa 3FPT yi nga xamante ne ñoo xool diwaanu morola xam ne Morolan am na centre handicap yi fi nekk ñu war leen jàppale ñu am convention ak partenariat ak centre de formation professionnelle bu nekk Morolan ak la mairie ñu signé benni contrat boo xamante ne moo ñu may lii tey programme bi nekk nii la tëddee. tey jii dañu fas yéene jox képp participant boo xamante ne nekk nga handicap suivre formation pendant six mois ñu jox la tey ay matériel bu dee wàllu ñaw indi nañ leen ay machine yoo xamante ni pédale la ak courant bu dee wàllu transformation fruits et légumes indi nañ leen lépp loo xamante ne matériel yuy jëm ci transformation la loolu moo waral bis bi tey ñu teefi pour am ci mbégte bu baax a baax surtout ñun parent yi ñi nga xamante ne ñoo moom suñuy njaboot bi ñu am handicap ñu yaakaar ne handicap bokkul ci population te am handicap ñoo war a nekk pay ci population parce que ñëpp dañoo handicap xëy na dañoo wuute ñii dañoo fësal ñi nga xam seen bos mu ngi seen biir yaram te feeñul mais képp kuy doomu aadama bu ñu la càmbar ngay am nga handicap sa sa biir yaram. programme social mairie bi la parce que mooy ne tout le temps avant ñuy initier centre bi amoon ñu ba dañ daan fi ñëw di def ay demande chariot ay béyki ak yooyu. ñu toog concertation mu ne est-ce que mënuñu tabax benn centre xëy na peut-être état bi bu ko yëgee wala yeneen partenaire mën nañ ci jàppale si la ñu waxtaan ak suñu fonds propre tabax centre bi loxo kenn dugalul propre commune bi moo ci dugal ak yéen a maire Yves Lamine moo tax mu def social bi amoon nañ jafe-jafe bu bari parce que kenn xamul leen ñu dem fenn amuñu fu ñuy dem amuñu xalaat defuñu dara am na ñoo xamante seen parent jéem nañu essayer di leen dugal ci école yi mais doxul mais bi centre bi taxawee ba léegi seen parents yi sant nañ ci yàlla social yi daan am amatul parce que ku bëgg am social au niveau de la commune dañ laan demal ci centre nga wax ak présidente bi am na président am na comité gestion boo xamante ne ñëpp ku bëgg am social handicap boo fa demee di nga am réponse yu baax. actuellement ni bénéficiaire bi bu njëkk ba cent cinquante la ñu waxoon mais ak euh, peut-être enclavement bi am ak ñi nga xam ne jot nañoo dem Dakar euh, au minimum dañu jot a tey lu moins de cent handicap. je m'appelle Diabou Mbaye j'habite à Morolan ci wàllu ci wàllu ñaw te ñaw bi tam bëri na luñ fi ñaw dañ fiy ñaw ay blouse yi blouse bi ma sol ni ñun ñoo ko fi ñaw dañuy ñaw ay taille basse ay robe ay yeneen ak yeneen lépp loo xam ne modèle boo andi rek nañ la ko ñawal. ah ñu ma formé dama leen di remercier rek ndaxte xam naa su ma toogoon kër ga loolu yëpp duma ko am mais ñëw bi ma fi ñëw moo ma may lu bëri. moo may tam ma am lu bari tam ah dama leen di conseiller rek pour ñu ñëw jàng si ndaxte jàng moom metti na mettiwul te tam ku jàngul rek doo dem fenn te jàng yi moo ñu mën a yóbbu foo xam ne ëllëg di ko dina dina kawe sa njottu daal. ah de maa ngi ciy xaar lu bari bëgg naa tekki ci ba tere samay wayjur ak keneen ku dul ñoom sax. ah ndax dëkk bi moom jàppalante rek moo fi war a nekk. je suis madame Diouf Florence Je suis chef de bureau formation au niveau du fonds de financement de la formation professionnelle et technique. lu waral suñu teewaay tey euh, ci biir Morolan euh, dañoo ñëw participer ci cérémonie de remise d'attestation au profit des personnes handicapées bi 3FPT tëgg ak mairie de Morolan une quarantaine de personnes handicapées lañ fi former pour un montant bu bu bu avoisinant 40 millions de francs CFA. voilà xale yooyu dañ leen financé xale yi ak femmes yooyu dañ leen financé ci couture ak ci transformation de fruits et légumes tey nag lañ leen di jox seen i lijaasa eh, ci autori eh, ci kanamu autorité autorité yëpp voilà 3PT tëjul ay. dañ ko ubbi pour ñëpp ku bëgg formation professionnel et technique mën nañu adressé demande am ñu former mais ñun nag dañoo beral loxo personnes handicapées yi ak yeneen euh, couches vulnérables yi. laago yi nag du personne handicapée moteur yeeg la ñuy former dañuy former également muy sourds-muets yi di former également ñoo xamante ne seen seen bët neexul euh, les malvoyants albinos yi ñoo xamante ne dañoo am problème mu der ñëpp la ñuy financer ñëpp la ñu boole ndax ñun dañoo seetlu woon ne couche boobu dafa nekk dañ ko exclure woon du duñu woon am droit ci formation amuñu woon sax information formation bi ñu nag dañ leen di fekki ba fu ñu nekk former leen ci domaine bu ñu bu mën a nekk pour autonomiser leen ñu mën a am ci lu ñu jàpp ndax ñun volet inser du ñu former rek bàyyi noonu on tient de du volet insertion professionnelle donc dañ leen di former boole ak yeneen lëkkaloo yu yeneen euh, structure yoo xamante ne dañoo lëkkaloo ak ñoom pour ñu financer leen ñu mën a autonomiser wu mën a ne am une activité génératrice de revenus donc c'est monsieur directeur du centre de formation professionnelle de mont Donc cette formation, hein, c'est un partenariat entre le 3FPT, le centre de formation professionnelle de mont et la commune de mont Voilà donc globalement parce que moi je suis le partenaire direct du trois fpt et les lycées et écoles de formation professionnelle. Vous savez que le 3FPT est un démembrement. du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Maintenant, quand le maire a voulu cette formation, il a adressé une demande au niveau de la directrice générale du trois fpt C'est que la directrice a accepté, mais tout en précisant que la mise en œuvre sera assurée par le centre de formation professionnelle qui a les compétences techniques pour délivrer ces genres de formation. Donc la formation consiste à former euh, handicapés ou personne vivant avec un handicap ou personnes à mobilité réduite. 21 en transformation fruits et légumes pour une durée de trois mois. Et à l'issue de cette formation, ils vont obtenir ce qu'on appelle une attestation de fin de formation montrant qu'ils ont toutes les compétences techniques. Et 20, 20, 20 autres en pendant, en coupe-couture pendant trois mois. Et après aussi, à l'issue de ces trois mois, ils ont une attestation de fin de formation. Donc euh, voilà globalement les deux modules. Mais à la fin de cette formation aussi, nous avons pensé à un module de dix jours en entrepreneuriat. Parce qu'après l'acquisition des compétences techniques, il faut accompagner l'apprenant avec un module en, en entrepreneuriat. Tout ce qui a été fait et le centre, à la fin de cette formation, dans le contrat qui le lie avec le 3FPT, avait promis pour accompagner l'insertion de ces jeunes d'avoir de donner un kit euh, de 20 machines. Donc chaque apprenant aura sa machine pour aller dans euh, la vie active. Et pour transformation fruits et légumes, chaque apprenant aussi également aura un kit composé d'une bouteille de gaz, euh, de petits matériels pour la transformation des fruits et légumes. Et les deux coûts font une, globalement un montant de 2 800 000. Bon, quant la formation, de manière globale, la formation, c'est 19 500 000. Mais vous savez le 3FPT, il finance à hauteur de 90%. Donc le 3FPT a financé les 17 millions et poussières et la commune prend en charge les 10%, c'est-à-dire 2 millions. le centre exécute. Donc c'est un partenariat centre de formation qui la commune qui est demandeur, mais en partenariat avec le chef de service de l'action sociale. Parce que les handicapés ce ne sont pas directement les cibles du centre de formation. Elles sont sous la tutelle de Madame Tchandoum, qui est chef de service départemental de l'action sociale. Donc c'est un partenariat donc action sociale commune, centre de formation et le TRAFPT qui ne finance que pratiquement, qui, qui, qui, qui n'autorise que les centres de formation et lycées techniques pour euh, euh, exécuter ces types de formations, qu'on appelle des formations de courte durée.